sama mag bu góor. Mhm. sama mag bu góor laa doon sauvé. may daw ma daw daw naa ba jéggi tali bi. ak supeer bi naroon koo def lu ki ma daw bu mbax ko ak ni ma nekkee xale xaw ma ma bu mbax ko léegi oto bi jaal sama kaw. man kay dama yeew rek fekk ñu dagg sama tànk. jooy na ba sonn. Mhm. mais mënuma ci dara ndogalu yàlla la. des fois nit di la wax yu kii man nu ma keroog benn gara dama romb. mu ne ma lafañ bi yee daa nga nekk ci TikTok bi mais wuyu moo ko sax ma xam ne xëy na xelam moo toll foofu. parce que nit ñi nit ma ci kiiwee loolu dara jotu kii si man daa man pour man dara jotu ma. dañuy dox par exemple mu naan bis bu sama prothèse bi ñëwee nga xam ne maay bandi moom si boppam. day am ay rêve yu bari pour bu amee prothèse ba am ñaari tànk. jërë ngeen jëf mbokk ñu suivre ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di ñaanal réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm di nuyu kilifa diine ak kilifa day tey nag ñu am mbégte dalal ñoo xamante ni kenn du leen présenté ci réseaux sociaux yi vraiment mu nekk mën sax couple laa ko mën a présenté ah vraiment couple boo xam ni fan yi vraiment gis nañ biñ ñëwee marqué nañ seen empreinte ci liggéey bi ñu ngi def ay ay message yu am solo euh, tout d'abord nag ñu ciy remercier sunu frère bi nga xam ne mooy boss parce que bu ko neexoon mënoon na jël métier mi rek yemale ko ci leneen mais chaque ay xool yi nga xamante ne dafa gën a sensible ci société bi mu koy génne. donc ci loolu nag tey nag la ñu am mbégte jàkkaarloog mooy star bi nag vraiment Oumy Oumy dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. salaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. micro bi sant. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp. ndax ku ku lim juum daal maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. d' accord Oumy bi am na solo euh, tey lan moo la lan moo la poussé ba nga ñeme TikTok bi parce que gis nañ tey Sénégal ñu bari dañuy am genre yenn handicapé yi mais dañ koy xaw nëbbu mais tey yow lan moo la may courage yu nga ñëw euh, nekk ci TikTok bi am ci fierté aussi. ah xanaa loolu boo amee tey jii nii ba ma nangu yu bari di ko def. yàlla ak boos ndax moom moo may téye naan ma lii du daar ak yooyu noonu xam nga léegi man tamit loolu di moo ma may courage nit ñi encouragé ma ma def benn yoon ñëpp bëgg ko ñëpp encouragé ma après ci laa amee courage daal gën a kii. benn yoon boo bi ngay njëkk a génn. Mm-hmm. waaw bi ngay njëkk génn ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. naka nga ko dundee succès bi noonu. Wesaar nag daa neex. <laughs> non affaire yi jàppee ko woon ni sax noonu lay kiiwee franchement. Mhm. billaahi jàppee ma woon comme nit ñi dinañ ko kiiwee dinañ ko sentiree noonu daal. Mhm. moo tax ba ma ko kiiwee gis ñëpp ku nekk di ma félicité ak yooyu noonu. Mhm. ma gën a am courage daal affaire bi kii ma daal mu jàpp ma torop. nekk lu ma neex tamit. d'accord jour bi nga koy njëkk a joué naka nga ko dundee moment yooyu mbaa difficile woon. man kay ba ma koy soogee joué moom. maa ngi naan ay waay dinaa rus lu nekk ma wax. Mhm. ndax nit ñi bu ma gisee naa ma di wala leen pour man sax dina am ay nit ñu ko bëggul wala leen. Mhm. mais demeewul noonu. Mhm. franchement moo ko def rek ñëpp bëgg ko. ma daal ci am courage nag continuer. Euh, avant avant nga koy joué dafa nekk rôle boo xam ne boos moo ko bind jox la wala da nga ñëw ñii la lii ngay joué ak lee ngay joué rek nga ñëw joué ko. nekkul rôle de dañoo toogoon nii di moom moo doon joué nii rek après. ma daal di ñëw mu wax ma ko ne ma nañ joué benn affaire bu ndaw yi ma joué rek affaire yi jàll. Mm-hmm. après moment yooyu naka naka naka nga ko dundee ak sa famille est-ce que d'accord nañ ci parce que. waaw. Mm-hmm. sama yaay kay moom loolu ba mu ko yëgee dafa nekk lu ko neex parce que man sama yaay day joué kon bu gisee man may may def yooyu noonu du ko metti daal. Mm-hmm. moom tamit mu nekk lu lu mu rafetlu suñu waa kër ñëpp tamit bëgg ko ñëpp ñaanal ma si. Mm-hmm. mosuñu la ci critiquer naan la noo bàyyi lii wala bàyyi lee. non non d'accord bi nga génnee ci mbedd mi nag vidéo yi commencé circuler xale yi di la salange nga xool di am ay ay 2 millions vues vraiment yombul félicitation euh, moment yooyu naka nga ko doon dundee nga ko doon dundee ak public bi ci mbedd mi. non nit ñi moom bëgg nañ ma moom franchement. <laughs> damaa leen raw fuuf. ndeysaan billaahi. Mm-hmm. fu ma romb dañ maa bëgg macha allah. Mm-hmm. bëgg nañ ma te man tamit. awma lu du ñoom awma lu du seen fay mhm. parce que lii lépp ñoom la mhm. tey ñii buñ demee banaanu mi wala lii yàlla ak nit ñi la ñoo ci jàpp ñoo ma bëgg mhm. première fois bi nga koy njëkk a joué mu ba nit ñi commencé di di la di la apprécier ba say parent aussi tamit moment yooyu noonu lan nga jàng lan nga lan nga lan nga ci jàngee parce que comme yaa ngi doon wax naan premier jour bi da nga doon xalaat boo génnee ñu lay ñu lay ñaawal mais bi nga ko joué ñëpp apprécier ko lan nga ci jàngat. billaahi boos mi duma bàyyi ma fen keroog romboon nañ euh, benn groupe boo xam ne ñoom dañ doon dem nee nañ xaw ma dañoo defal association xaw ma lan pour handicapé yi ba ñu gisee laajal boos dañoo wax bay jooy bay gis Seydina Muhammad mu leer ma ne man kon li may def nii tax na ñu bëri am na ñu ciy gis seen bopp ak yooyu noonu ma xam ne li may def nii lu baax la. Mhm. te lu baax laa ci jub bëgg tamit ñëpp képp ko xam ne am na lu la dal wala leen ñu bañ koo jàppee dara ndax lii du dara man jàppee moo ko dara. parce que nit ñi ma ci kiiwee. loolu dara jotu kii si man daal man pour man dara jotu ma. ndaysaan ndeysaan d' accord léegi mën nañu ñëw ci li nga xamante ne mooy handicap bi. Hmm. Euh, daf la dal wala da nga daf ma dal. daf la dab waaw mën nga ñu ñëwal ci accident bi naka la demee. Hmm, accident bi moom sama mag bu góor. Mhm. sama mag bu góor laa doon sauvé. ci naka. xam sama papa da doon football ASC bi fii nii léegi moom bu daan dem dama koy topp fekk nekk maa ngi xale nekk naa xale léegi su daan dem dama ko daan topp moom day wax bay bëgg a dee sama yaay ne ma talibeeg yooyu wóorul mais dama xam boo nekkee xale rek ma topp ci sama yaay ne ko dawal jàpp ko ma may daw ma daw daw naa ba jéggi tali sama mag bi di daw nag super bi naroon koo def lu kii ma daw bu mbax ko ak ni ma nekkee xale xaw ma ma bu mbax ko léegi oto bi jaal sama kaw. ndeysaan. Mhm. noo ko la la noonu la la arrivé. ana sa mag boobu. mu ngi fi mu ngi fi. moment yim la arrivé après ñu jël la yóbbu la hôpital. Ah. naka nga doon dundee ci hôpital bi. man kay damaa yeew rek fekk ñu dagg sama tànk. Mhm. xaw ma woon sax lu xew. da mhm. nga rek ñu dagg ko avant ñu koy dagg waxuñu la. Mhm. parce que oto bi ba mu jaalee sama kaw damaa xamul. yéeguma damaa yeew rek fekk ñu dagg sama tànk. bi nga yeewoo gis ñu dagg sa tànk bi maman yooyu naka la la def. non maman yooyu moom metti woon na trop metti woon na trop. mais sant yàlla parce que dama jug suñu waa kër ñëpp encouragé na ma heure bi mënoon na la fee bañ a fekk ku nekk wax jooy naa ba sonn mhm. mais mënuma ci dara ndogalu yàlla la mhm. nanguwuma woon sax génn daaw ma génn dañ ma daan forcé pour ma génn sama xarit yi di ma forcé pour ñu toog ci yooyu daaw ma sax génn suñu biir kër mhm. ndax affaire daf ma jàppoon daal mais suñu kër ñoo ma doon kii ñoom ñëpp ku nekk kii ma. Mhm. moo tax affaire yi. d'accord ñu ngi lay encourager métti na euh, mais tey moment yi ñu ko daggee bi ngay génn seen kër nga amoon ñaari tànk euh, nga jékki-jékki dem di sauver sa mag ba ndogal fekk la ci nga dem hôpital ak la fa xew bi ngay retourné waat di ñëw sa kër moment yooyu noonu naka nga ko doon dundee. waaw xam naa nag dina xaw a doy waar tur ñu waxtaan ci. waaw mais da ngay takk sa da ngay kii rek da ngay parce que tey c'est c'est tamit ñu leeral fans yi parce que tamit nekkatoo n'importe qui ci dëkk bi tey star nga tey euh, benn nit nga boo xamante ñëpp a ngi lay suivre chaque jour nag nit ñaa ngi laaj lii lan moo ko waral kon donc comme tey nga am occasion c'est normal xam naa du ma sori foofu foofu noonu rek laay tënkee après naka nga ko doon dundee bi nga ñëwee ci koñ bi wala ci kër gi aussi tamit. suñu koñ moom ñoom amuñu woon yaakaar ne que ne dinaa yeewu moo tax ba ma ñëwee waa koñ bi ñëpp ku nekk ñëw nañ ñoom ñëpp ku nekk ñëw ku nekk di ma encouragé ñëpp bëgg ma. Mhm. di ma wax lii du dara. Mhm. d'accord euh, après naka nga doon dundee ak nit ñi donte Sénégal ku ne xam na ni ñaar yi bëriwul luñ ci ànd ak nit muy handicapé ak li nga xam ne mooy ñàkk souvent boo ko defee dañ lay daw après naka nga doon dundee ak nit ñi jour bi nga njëkk a génn ci mbedd mi. non man kay bugguma woon sax ñu xam ne man dara jot na ma wala leen parce que da bugguma woon sax génn du ma génn dama doon toog suñu kër rek. Mhm. soo génnee du ñàkk des fois ñu lay xaw a ñu lay xaw a xaw a xaw a xaw a xaw a mais di la xaw a critiquer loolu kay mënul ñàkk. Mhm, moment yooyu bëgg naa nga ñëwal ma ci aussi. loolu yokkoon na tax daaw ma génn ndax xam nga soo génnee xale yooyu noonu ñoom duñu comprendre xëy na mag ñi ñoom ñoo lay gis di la comprendre di wax mais xale yi duñu comprendre moo tax man daaw ma woon génn. Mhm. naka nga ko doon dundee ak say xarit moment yooyu dafa mel ni yaa ngi doon jàng. damaa arrêté mhm. sama yaay ba ma waxoon pour ñu dem dama ne ko duma génn. élèves yi di ma xool wala ñu may wax leen mu ne ma duñ la wax dara ndax ñoom ëppalee wuñ la dara dama wax loolu ma may dem rus naa torop mais ma teew dama bës ak dem ni ma foogee woon ne bu ma demee noonu lay demee sax amaana ka demeewul noonu mhm. parce que dem naa du ñàkk nag dina am ñu lay xool yenn xool yi mhm. mais du ñàkk tamit dina am ñoo xam ne dañ lay bëgg mhm. tey ci say rêve daan nga rêvé naan ah bi may jàng daan jug solu defaru sangu dem école dox ak sama ñaari tànk du ñàkk am na ay rêve yoo xam ne daan nga ko bëgg. Mm. loo xam ne daan nga ko bëgg ci say ci say projet euh, tey du ma ni mu tëla mais mu xawoon a jafe tuuti ak gàllankoor bi nii euh, bo bokkoon na ci say rêve comme lan. waaw da ngay nag wax parce xam naa du yomb tey loo xam ne yaa ko doon rêvé naan lii. su ma màggee suma ma lii ak su ma lee après handicap bi dal la. d'accord euh, léegi moment yooyu noonu xam naa damay falay falay falay falay jeexalee euh, lan moo la motivé sa premier jour bi ngay génnaat ci mbedd mi motivé am courage yu génn jàpp ni man kat lii ndogalu sunu borom la lu waroon a jaar ci man la moment yooyu noonu après naka nga ko dundee. na trop metti na trop mais bon euh, ndogalu sunu borom moom kenn mënu ci dara parce que tey euh, waaw ñun ñii dund gu sotteegul lu ne xaj na ci te dañuy wax ni euh, handicapé moo moo moo kaso kenn mënul taxaw ni man sama vie yëpp mën naa ci mujj donc nag bu la dalee aussi tamit ñu ngi lay encourager tey santal yàlla santal yàlla ndax tey lii la yàlla may. am na ñoo xam ne ñu ngi yor ñaari tànk di doxi seen soxla yor seen oto sax amuñu ko parce que tey ku ci nekk ñaanoon nga yàlla euh, jur doom joo xam ne bu génnee ñu ni a ngi ne muy ci lu baax parce que nekkoo ci lu bon donc bu loolu xewee nag ah, dañu lay encouragé bu baax baax di la masawu euh, boos dama lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre. salaamaaleykum maa nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp mm-hmm. surtout nag di jël nuyoo bi. di ko jébal kilifa diine ak kilifa aada yi mhm. di leen wax ne senegaal bopp benn bopp la kenn mënu koo xar mhm. yàlla na fi jàmm sax mhm. yàlla na fi jàmm yàgg lépp loo xamante ne ni rek ñu ngi koy séentu mu doon lu bon yàlla bu mu egsi ndax jamono ji Sénégal tar na tar boo xamante ne nii kilifa diine yi rek ñooñu mën a jàppale pour lan pour suñuy doomu dëkk sevewu si seen bakkan parce que jamono ji képp ku toog sa fit du dal sa dara du dal muy si ñun ñëpp di ñaan yàlla na fi jaamu yàgg. d'accord am na solo boss fan nga xamee Oumy. Oumy benn copine am ko présenté euh, ba ñu xamante amaana na mën naa ne yàggul muy ci weeru koor bi lañ xamante ci weeru koor bi. Mhm. nga def tey ba xëcc ko ci rôle yi nga xamante ne yaa ngi koy jouer ak ñoom. non dara parce que man man artiste la mm-hmm. man duma tiktokeur. waaw mm-hmm. te artiste dafa nekk loo xamante ne nii pour man créer benn rôle mu génn du gan si man. Mm-hmm. parce que indi naa fi maam indi fi sama yaay kon bu ma indee kii warul jaaxal sénégalais waaw rôle bi du du dara la ma dikkee dama ko gis rek xam ne am naa ci moom idée mm-hmm. suñu première rencontre joué man ak moom mais nag dafa jur loo xamante ne mooy maanaam loo xamante ne ni mooy sentimental bii dox sama diggante man ak moom yaa ngi dégg mm-hmm. ak yërmande bii dox sama diggante man ak bii dox sama diggante man ak moom ak cofeel bii dox sama diggante man ak amuñ manqué wul dara boo déggee mu ne manqué wul dara mooy am na ma kon manqué wul dara ndax man àdduna bi nee naa man su ma ko dese woon moom kese sax jàppal na manqué wu ma dara mais su ma ko ñàkkoon am ñëpp jàppal ne aw ma dara waaw. d'accord euh, est-ce que tey xam nga li ngay représenter Sénégal parce que tey lan moo lay jox inspiration ngay mën di jouer rôle yooyu parce que comme li nga wax. ci samay commencement wax wax naa ko des fois dañuy gis ci say ci say séquence euh, ngay joué yoo xamante ne nii bëriwul lu ko nit ñi di gis muy jël say maam ba ca jël sa yaay. tey nga lu ñu élément bi nii. rôle yooyu noonu dangay toog di xalaat situation bi fii la toll. wala askan bi lii la ñuy dund. wala dangay ngay toog di ci waxtaan ak ay nit aussi. non waxtaanuma si kenn sama idée bopp la xam nga tey maam danga ko indi pour nit ñuy fàttalu seen maam mais li ñu mujjee indi dafa nekk loo xamante ne nii commencement. Mhm. ñu ne dina egsi fii. tey boo gisee ba même masse beneen booy bi handicapé bi dañ koo indiwaat. dinaa ñëw ci masse. waaw ma koy mhm. Mhm. parce que boo gisee ñu indi lii bi frère senegal dañoo am benn sikk bu nekk si ñun maanaam handicapé dañ koo écarté trop soo déggee ma ne dañ ko écarté waxew ma ngir yërmande noonu mais tey pourquoi pas handicapé yi tey am ay entreprise ñu ne entreprise bi handicapé bee ko moom pourquoi pas tey handicapé am ay oto mës ngaa dégg ministre bu nekk handicapé mës ngaa gis député bu nekk handicapé te yéen ndeysaan keroog sama benn tonto dama doon expliquer lu daw yaram mu ne ma handicapé bi dafa jàng baam am diplôme benn xaritam dem pour déposer liggéey amul liggéey pour pourquoi tey ñun dañoo taxaw ne dañoo war a valoriser handicap pour sénégalais yi jox leen seen cër parce que kii am na ñu ko gën a garaawle kaa fuuf. benn jour daf dafay toog ak man xam naa da leen koy bañ a wax ne moom li ko gën a metti si àdduna mooy maanaam rêve bi mu amoon si yaayam. fa laa doon ñëw sax ci la commencé tuur ay xéewal loolu la xalaat moo tax mu jooy. dinaa fa ñëw moom d'accord parce que boobu li tax sax ma bëgg fa ñëw mooy. Mhm. tey mën nga gis koo xam ne mu ngi koy seetaan. Mhm. am na yéene pour mottali pour mottali rêve boobu. Mhm. donc c'est normal aussi tamit ñu souligner ko mais dinaa ñëwaat ci moom vas mais ñun daal li ñuy wax daal sénégalais leen kese la. ñu jàppale ñu parce que lii nii dañoo waxoon benn koo xam ne États-Unis la nekk. mu ne li ngeen li ngeen génne États-Unis la ba léegi nguur gi recevoir na leen. Mhm. pour gën leen a jàppale. Mhm. parce que ñun tey instant yi ñu ngi xalaat bu bari idée yu bari pour handicapé yi gën a gis seen bopp si li ñuy def nii. Mhm. mais moyen bi moo ko moo ko moom lañ amul. dëgg yaa ngi dégg tey ñu ngi nii dañoo génne benn logo mais amuñu tey ku ñu financé koo xamante ne tey dinañ gën a mën a génne t-shirt yi. que bu dee dëgg la rek li ñuy joué nii dañ koy joué rek mais aar bi fayagul fay boo xamante ne ni aussi ñun si suñu côté day metti torop da metti torop. Mhm. te tamit bu dëgg dee dëgg ñun maanaam cas social lañ bu dëgg dee dëgg. dëgg la tey suñu famille demewul noonu. Mhm. sant yàlla rek. Mhm. mais tey képp benn volonté bopp bu pare rek pour jàppale ñu. ñun ñu ngi nii pour nga jàppale ñu si bépp côté. ñu àggale mëbët. moom bi amoon si yaayam. tey man mii di wax ak yow sa mère handicapé la. Mm-hmm. parce que ni ko suñu borom bindee. Mm-hmm. kon man faa ma faa ma jël handicapé valoriser ko. Mm-hmm. ko foo xamante ne nii tey ah du ma fa teg kenn. kii nag du handicapé jàppee ma ko lool. parce que cafeel bi may am si moom man xam naa ko. te te defaguñ dara Sénégal. defaguñ dara. Mm-hmm. lii dañuy commencé rek. Mm-hmm. mais des fois des fois bi nga commencé jouer rôle bi ba moom mu génn euh, di ko wane ba nit ñi di ko gis amoo ci ay retour ci yeneen handicapé yi lay woo di la remercier. Mm. bari jooy ay mm-hmm. jooy. ndeysaan barki Serigne Touba handicapé damay woo naan ma naan ma yow li nga def daa mel ni xamoo ko ñun nga ko defal handicapé yoo xam te ne amoon nañu fitu génn handicapé yi tey ñu ngi génn. yaa yoo xamante ne nii. amoon nañ complexe pour génn handicapé yooyu ñu ngi génn. dañ may gis di jàpp sama loxo di jooy barki si li may wax nii bu dee du dëgg bu ñoom mën nañoo génn wax. fépp fu ma handicapé gis koroog feelaa tase ndeysaan ay yaay booy yoo ne seen puus puus lañ toog maire bi daa wax ak man bay jooy. na ma na nañu nañuy suturaal nga ñu sama di ma ñaanal lii nag defuñu ko ngir dara ñun dañoo bëggoon ñun dañoo bëgg ñuy jàppale ba ñu ba ñu suñu yéene ci handicapé yi. sénégalais gën leen a jox cër ad àdduna gën leen a xam. d'accord dinaa ñëw foofu ci jàppale bi parce que tamit lu am solo la. Euh, ñu gis tamit nga waat keneen mu di maas moom mës naa ko dalal fii nii. affaire bi dafa mel ni fi mu toll nii da nga ko bëgg ko bëgg a def benn genre genre projet boo xam ne day am suivi. déggoo li ma la wax incha allah ni buñ amee ñu ñuy jàppale affaire bi yemul si maas kese parce que képp koy handicapé da cee war a gis boppam. Hmm. ñun lenn rek la xeex en de valoriser mu nekk logo boobu defar nañ ko sax. léegi mu génn bu ñu amee koo xamante ne ni mën nañoo financer. waaw ak yeneen ak yeneen ay yeneen logo yeneen logo mi génn. maas esaan yi ñun ñooy joobandoo ensemble ak ñun ñëpp ak troupe lañ. ñu kenn duñu ñaar yaa ngi dégg mais tey Sénégal dafa toll moment boo xamante ne tey boo fi defut yëfu caaxaan rek kenn du la jàppale. ba ma daa def yëfu caaxaan pour dire vrai li ma daa gis. ak nii nii sax gisuma ko ma ma daa def yëfu caaxaan laa gënoon a am xaalis lan ma gënoon di jàppale. mais tey bi ma ñëwee pour wane li nga xamante ne nii muy handicap mooy ñu valoriser ko parce que si ñun lañ bokk si ñun lañ bokk yàlla suñu borom mooy bindu doomu aadama boo demee ci armée est-ce que di nga xàmmee bërëbu handicapé bi ak ki am ñaari tànk. kon boog ñun ñëpp ci yàlla fii lañ ci yàlla lañ jóge te fa la ñuy dellu. Mhm. nga la nan gën a jàppante gën a fonkante gën a respectante. Mhm. d'accord euh, tey yaa ngi koy wax ci say projet mën nañu xam say projet lan la. samay projet lenn kese la lenn kese la am benn projet rek tey dimbali suñu yaay moo ñu tax a jóg te tey loolu ñun ñëpp la. Mhm. du yow du man du kenn xam loolu kon loolu du projet loolu la war la. Mhm. mais tey man dama sama projet lenn la rek pour def. ba handicapé am baat ci réew mi maa gële sama mëbët ci moom kii nag sama projet tamit takk booy bi yow. waaw waaw parce que parce que parce que parce que sénégalais yu bari tamit fa laa a ñëw sax sénégalais yu bari tamit ñu ngi naan ñu ngi naan commentaire yi da ngay gis. Ah, ah. vraiment ñu ngi naan sëy mais yéen daal da ngeen di nekk en couple ah. ah Oumy Oumy doo wuyu <laughs> Oumy da ngeen nekk en couple ah <laughs> Oumy. da gëj na ngaa kóobal <laughs> boss. daa mel ni daa mel ni la wax de. xale bi mooy sama coppati. mooy sa coppati. waaw. waaw la fa demee. ndeysaan te mariage bi nag bientôt na ko Sénégal yëpp xam. Oh. waaw que xam naa moom loolu luy moom daaru sa wax. Oumy yow pare nga Oumy <laughs> pare nga pour sëy ah pare nga pour sëyal ko est-ce que nopp nga ko. <laughs> d' accord boss xam naa ci yow laay jeexalee damay ñëwaat ci moom comme moom mu ngi reetaan parce que boobu il fallait que ñu wax ci. ak jàppale yi nga xam ne tamit gars yi war nañ ko jàppale parce que damay wax ni yaa ngi joué. rôle bu am solo parce que tey TikTok. nekkul ni ay saaga. wala nekkul ni ay naka sudul noonu wala ay live di wax ay bu nit mais chaque jour gis nañ ni yaa ngi génnee li nga xamante ni vraiment euh, société bi ñu ngi koy dund. société bi ñu ngi koy dund surtout banlieue bi ñu ngi koy dund donc kon yow euh, yar yàlloo nga jàppale mais damay ñëwaat ci yow ñu wax ci jàppale bi ak ci mariage bi damay ñëwaat ci ummi ummi ummi damay ñëw ci yow sànq boos mu ngi koy wax da takk sa fit nag ñu daanelee foofu parce que tey ku ci nekk ñaan nga yàlla am ay rêve yoo xam ne yaa ngi ko doon rêvé tey yan mbébét nga amoon ci say wayjur non man moom. noo takkal góor góorgóor benn trente secondes rek. nga wax après on passe à autre chose. man moom situation bëgg naa changer situation yu bëri billaahi suñu kër ak feneen ak feneen dëgg la suñu situation moom demeewul noonu. Mhm. metti na torop day metti torop mais sant yàlla bu wér. Mhm. te bu ma génnee des fois damay gis situation yoo xam ne tamit damay fàttani sax man am naa situation wala leen. Mhm. damay gis loo xam ne damay xam ne. adduna billaahi am na ñuy dund lu metti billaahi te sama mbëbët mooy comme dimbali man daal dimbali man bëgguma kenn ko koo xam ne day jàmmat wala ko am problème wala leen te bu ma yàlla defoon ba ma kii billaahi situation bu bëri gëm naan dina changé te est am yaa ngi am retour ci yeneen handicapé yi nga xam ne dañ lay woo di am ci di am fierté ci yow aussi waaw ñu mhm. ngi may moom keroog rek am na kenn ku demoon létt jëfale fale côté Dakar. Mhm. moom boos moo ma gunge woon sax. Mhm. kooku daf ma wax bay jooy daf ma ñaanal lu nekk. Mhm. billaahi. ñoom ñu bëri dañ naa ma instant bi ñu ngi commencé génn billaahi ñi naa ma ñun daawuñu génn ak yooyu mais buñ gisee yi ngay def nii tax na ñu ngi commencé génn laaj ko keroog rek dañoo toog di seetaan TikTok yooyu noonu. gis ñu bëri tamit ñuy gis lu ñuy gérer di ko joué waat mm-hmm. mu leneen ñii tey jii ni loolu bokkoon na ci loo xam ne comme ça xalaatuñ ko woon wala leen mais liñ gisee tax nañu am courage ba ñemee di génn seen bopp ak yooyu noonu. Mm-hmm. d'accord tey jii lan ngay wax autorités yi nga xam ne tamit bëgg nañ la jàppale aussi tamit bala maa ñëw ci sa diggante ak boos. moom kay ñun ku ñu jàppale lañ bëgg parce des fois tournage bi day métti ci ñun torop dañuy des fois dañuy dox di tourné ji di dox ba ku ñu gis sax bu ñu rombee dina xam nañ ñii ñi ñuy romb ñëpp dinañ xam nañ ñii seen tournage bi dafa metti billaay bu ñu amoon ku ñu jàppale moom ci yu bëri dinañ changé lu bëri te dinañ gën a kii nit ñi. Mm-hmm. rôle yi nga jot a joué yëpp ban moo la ci ban moo la gën a marqué. man moom rôle bu ma euh, joué mu jàll rek xool lu gën a. mais du ñàkk boo xam ne nii moo la ci gën a moo la ci gën a touché boo xam ne da nga ko joué nii après nga toog nga ne non tey nag lii mu marqué la ko en fait day am. neex waaw bu neex la ban rôle moo la ci gën a joué. ban rôle moo la ci gën a touché. si vidéo yi nga joué ban moo la ci gën a neex yow yaa ñaata yoon lañ toog nga naan bii neex na ma. maanaam rôle yi nga jot a joué yëpp ban moo la ci gën a neex mooy bi ngay bi ngay ñuy fecci wala bi ngay taxawee wala bi ngay bi mu accolade ban moo la ci gën a neex xam naa loolu du ko mën a jàpp d'accord. Eh, xam naa waxal <laughs> léegi ban moo la ci gën a touché boo xam ne da ko def pare ñu bari woo la ni la tey moom. gën a ak bu la gën a touché. non nañ ko xam dina wax léegi ban moo la ci gën a touché boo xam ne tey danga nga ko def pare ñu bari woo la naan la noo lii lii metti nañu wala lii di la maanaam bi nga ëpp ay retour bi la ci gën a touché ban la. bi ma joué ak gars parce que dañoo joué comme tey jii nii ma romb. ma romb waddal comme ça ma romb sama béykat bi wadd ma am pour mu jàppale ma mais nangu ma jàppale mais moom xam na ni sax na laa ko mën a. comprendre naa xam na ni yow handicapé nga. waaw mu ñëw jàppale la. waaw comme tey jii nii ñii ñu la mën jàppale nii. d' mhm. ñii am na ñoo xam ne mel nañu noonu. Mhm. boo leen di wax ci waxu jàppale sax duñ la sax xool. Mhm. te mën nañ jàppale loo xam ne ci lu ñàkk fayda lay doon mhm. te war a jàppale loo xam ne nii te yàlla tax lay doon d'accord kon foofu noonu yaa ngi fay jàngalee que ni sénégalais yi cër bi ñu war a jox handicapé yi joxuñu leen ko des fois dañuy di la wax wax yu kii man nu ma keroog benn garant damaa romb mu ne ma la fañ bi yee ta nga nekk ci tiktok bi mais wuyu moo ko sax ma xam ne xëy na xelam moo tollu foofu oh. sama xarit bi moo taxoon ne moo doon taxaw sax di jéem ma ne ko bul wax ak mu ñëw mu ne ma xanaa xanaa nekkoo moo ko ba tey noonu laa ko rombee mu leeral kon ba tey nit ñi am na ñoo mais des na am na ñoo xam ne mooy mhm. yooyu bëri na loo koy dund. Hmm? bëri na yooyu looy dund genre yu mel noonu. loolu moom mënul ñàkk. Mhm. Hmm. léegi ma ñëw ci couple bi rek. diggante bi mais ñaa kañ ngay commencé génn première tournage bi wala no mais umi nag da ngay wax nag xaw nag mën a fee jooy sàng ba tey ma bàyyi la da nga non da ngay wax nag dina ñëw yow laay wax ba pare no yow laay wax parce que fi mu toll nii non ba pare non coupe mais mbëggeel kay ñaar ko seq yow yaay wax ba pare kañ ngeen commencé génn di laay baal ma demee loolu mais di nga wax euh, moment yi ngeen léegi <laughs> léegi léegi <laughs> léegi. Eh, <laughs> léegi euh, euh, yan seede nga mën a def ci boos. Oh, nit ko baax la moom. Mhm. billaahi ndax gis naa am na yërmande torop torop. billaahi. Mhm. des fois day day def yëfu yërmande ba ma naan ko yow lan la yooyu noonu. Mhm. billaahi des fois day toog di. comme benn affaire bi ma def benn geste bu ndaw wala leen mu toog ci di ci jooy ba ma naa ko yow <laughs> des fois sax dama ko ji dépassé yooyu noonu. Mhm. billaahi nit ku baax la moom. Mhm. franchement. Mhm. d' accord euh, tey sëy bi est pare nga pour sëyal ko. waaw. ah. bu yónnee woon guro tey pare nga pour sëyal ko. Mm-hmm. donc tey ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci TikTok bi naan mariage mariage bi dama bëgg nga jàkkaarloo ak ñoom ni leen man boos laa bëgg. day xaar mariage waaw bëgg ngay leen man boos laa bëgg pare naa pour sëyal ko ma bëgg nga wax ko fii gars yi dégg ko waa TikTok bi il faut nga wax <laughs> mais boos ki sëniwul sëniwul daa keneen ku ñu bañ mu yëg ko sax moo na nangu cee wax ni. ah moom ah mais loolu lañ de ah, ah mais lan la ragal fee de day xañ a wërsëg <laughs> donc tey mën nañu xaar bientôt seen mariage yéen ñaar. incha allah d'accord kontaan naa tey ban message ngay lancer ak lan ngay tàggatoo ma ñëw ci boss ak projet yi aussi. li may lancer moom leen la Sénégal na xam ni fii ñëpp benn lañ. billaahi fii rek laa gis dëkk boo xam ni ñoom ñoo valoriser wul handicapé fii kase kase la am. Mhm. tey jii nii bu doon feneen la billaahi ba tey nii. Mhm. nit ñi jug nañ ci bay wax ci jàpp si. bu baax mais ñun loolu fekk ñu ngi gis joué lu rafet am na ñu ko gis ñu ñoo xam ne tey jii ni ñu ngi ñu bëgg a jàppale mais mënuñu ko mais ñi ñu mën a jàppale tamit ñu ngi toog boobu ba tey dañu seetaan te ñun bëgg nañ lu lu lu bëree bëri ay projets yu bëri yoo xam ne bëgg nañ ko mais xam nga rek demeewul noonu ñun daal li wax mooy ñu jàppale ñu ba bëgg yàlla jàppale ñu si. ñu def ko ak jàmm teral suñuy ay ñun li ñuy xaar ci autorités yi leen kese la tey ñun suñuy projet ndeysaan sànq dama am lu ma xalaat bëgg a jooy barke alxuraanu karim parce que xañ na dem nañ def nañ demande ñu ñuy waaj a utal protège mais ndeysaan dañuy dox par exemple mu naan bis bu sama protège bi ñëwee nga xam ne maay bandi moom si boppam. bis bu ma amee prothèse damay dem jàngi concours danse damay yel di fecc naan bu ma amee prothèse oh barke arxuraanu karim war na Seydina Muhammad mm-hmm. da am ay rêve yu bari pour bu amee prothèse ba am ñaari tànk mm-hmm. barke arxuraan billaahi mm-hmm. nekk nit boo xamante ne ni faaw ma eh, indi si moom si lu bari nit ku baax nit ku oyof nit koo xamante ne nii maanaam ku xam àdduna billaahi mais autorité leen rek la xaar parce que tamit li naan feccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca mbagg ya dëgg la que am nañ gëm-gëm am nañ ambition mais tamit bëgg nañ ku ñu jàppale ku ñu taxaw ba tax li ñuy xeex leen kase la ñun ñu ngir suñu bopp de mais dañuy xeex ngir ñu valoriser handicap respecter leen teg leen seen place. Mm-hmm. tey ñu ngi nii moom mu ngi nii kenn dàqu koo leet si àdduna. Mm-hmm. ndeysaan bëggu dara lu dul liggéey bañ na ba daan boos bu ma amee bu ñu amee salon ah di am ay rêve. ndeysaan barke arxuraan. man tamit sa tooguma ma barke arxuraanu kërim lépp lu ma mën a def même bu ma jàppalewul sa lu ma mën a def man ba génne ko si situation yi dinaa ko def. Mm-hmm. parce que <laughs> <laughs> d' accord ah euh, am na solo maam mbégte jàkkaarloo ak yéen maam mbégte aussi tamit euh, seet si leen. moom mais da nga wax sànq lu am solo xam naa dinaa ci ñëw muy war nañ ko jàppale. ci li nga mhm. wax noonu yaakaar naa méttiwul. Mhm. tey ñu ngi wax bonne volontaire yi nga xamante ni euh, ñoo koy ñoo koy ñoo koy seetaan. Mhm. te yaakaar naa people 221 moom lépp lu fi dugg rek lu jëm ci loolu. am nañ ci ay retour que ni incha allahu rabbi nit ñi nañ ci jàpp. bu soobee suñu borom ñoo la ko wax. te bu soobee yàlla dinañ ci xar suñ tànk tubéy ba ñoo ko indil fii nga jël sa sa sa protège di ci di ci di ci di ci di ci dox lii li ma gis maas doon ko sinap naan bii mën nga toog kër ga xaw ma beneen yoon bee mooy ñëw mhm. donc incha allah loolu moom dinañ ci def suñ kémtulaay kattan mhm. te ñoo la ko permettre te nañ ko def incha allahu rabbi mhm. donc tey lan ngay tàggatoo boss waaw li may tàggatoo leen rek yàlla nañu yàlla musal si cat yàlla ñu yàlla musal si cat. yàlla nañu yàlla musal si cat. ndax xale bi toll na ma foo xamante ne nii bis bu cat duggee suñu diggante. bu gaa yi yéexee tuuti <laughs> ah, leneen dina am lu gaa yi fooguloon. parce que xale bi maanaam. boo sax mel na xale bi nag. xale xale bi xaa gisoo reetaan xale xale bi <laughs> neex naa nopp wala neexuloon. waaw macha allah. reetaanaa tamit ma tamit fi ñuy programme ay sëy ma faa wax dara moom vraiment mais neex naa nopp xam nga damay bañ a wax nga yaakaar sama <laughs> mais tamit leen la ñuy def dañuy remercier Sénégalais yëpp. dëgg la parce que tey maanaam tey mënoon nañoo jot commentaire yu négatif du ñàkk. Mm. mais lu positif yi moo ëpp lu négatif. Mm, dëgg la parce que Sénégalais yi xam naa moom bis man bu ma demoon ut keneen bàyyi ko fi moom. billaay sénégalais boo moytuwul mën naa génn ñu jàmm ñu rey ma te du ma. te du ma ko teg keneen ci àdduna yaa ngi <laughs> bañ na ko ba dama ko bis bis bu ma la woroon takk keneen moom eh, sénégalais rey ma doo dégg ñu nag autorité yi yéen la ñuy wax at di leen ñaaxaat. di remercier yéen ñëpp People 221 moom amuñu seen fay. jërëjëf parce que tey bu leen neexoon ngeen ne yéen yéenay déplacé wu mais da ngeen moo yoon ñëw ba fii chute bi mën naane ne surtout sénégalais yi la. jërëjëf jërëjëf ca kaw ca kanam. jërëjëf waaw yàlla def. xam nga ñu am ñu ñu gis ay retour yu yu. incha allahu rabbi. yu jiitu suñ jot. incha allahu rabbi. afis. <laughs> <laughs> donc mu ngi noonu ah pour yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen ko jàppale. numéro téléphone baa ngi noonu soo ci wootee rek incha allahu rabbi di nga jot boss directement. Mhm. bu ko defee boo ko jotee moom dina la wax naka ngay def ba jàppale ko. Mhm. ak naka ak naka ak naka ak ci lan la bëgg ngeen jàppale ko numéro téléphone baa ngi noonu daw ci service commercial bi. Mhm. soo ci wootee rek di jot boss directement. di leen jox yeneen yeneen dig daje suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.